baax a baax a baax. ñu fekk la euh, ci euh, rend hommage bi nga xam ne ñu ngi koy defal euh, kii di Thione Ballago Seck yëg-yëg bi lan lay doon. ah xanaa xol bu sedd rek ak sant yàlla te xam ne lii yombul ñun xamuñu ba xam dinañ am liyam déet kon bu li amee demee nii suñu xol sedd na ñu koy sant suñu borom bu baax a baax a baax di ko gërëme yàlla nag. too euh, amee loo xam ne daanaka yaa ngi koy euh, dénk ki nga xam ne moo di doomam wala ki nga xam ne daanaka moo di mama jaaga euh, lan lay doon. waaw doomam de moom xam nga ni naan ku boot bukki xaj baw la moom foog muy dégg ndax moo jiitu ku jiitu nag moom foog ñu wax la dara mais day xam ne yàllaa ko jiital rek mu xam ne lépp dogal suñu borom la ndax ku jiitu yaa sonn kon day muñ loolu la. lan nga ñuy wax ak ki nga xam ne moo di Thione Ballago boo ko fàttalikoo rek a sa xel a dem ci moom. Ah, waaw coon moom mooy koo xam ne kenn du ko fàtte ba du ko fàttaliku ba léegi dañuy jooy te ronga ñu jeexagul ndaxte kilifa la idole la fi mu jógee vide la fi bàyyi moo tax du neex a fàtte du neex a fàtte coon sekk ba ilaa yu mi diini kenn du ko fàtte ndax dafa am lu mu liggéey bàyyi ko fi nekkoon sutee famille am nekkoon yi mbokkum yëpp moo tax fàtte ko du yomb at yi yëpp kenn du ko fàtte barke na mu Moustapha waaw waaye nag yàlla moom kenn mënta xëccoo moom dañu sant rek hmm, dañu sant rek waaw kay. jërëjëf ah, ñu dem si ah, benn. Mhm. Aminta Fall ta Aminta euh, Fall euh, moom Aminta Fall macha allah. ndeysaan ci groupe bi la bokk ndeysaan yaay booy yëg-yëg bi lan la. di delloo suñu xel ci yàlla. di sant suñuy waajur di julli si yonent bu tedd bi xol yëpp a tooy nag ndax Papa Thione moom kum fi fekk rek ak loo mënti jàpp da ngay bàyyi lépp ñëw teewee ka ndax daf fi bàyyi un grand vide naqar daal la fi bàyyi te ñu ngi koy ñaanal nag fii mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge te sarax si yàgg suñu loxo loxo ñëpp di gërëm waa Ballago famille ci jëf ju rëy ji ñu def te bii mooy seen troisième édition donc yàlla na ko yàlla saxal ñu ngi leen di gërëm di leen sant kontaan nañ torop jërë ngeen jëf. lan ngay dénk ki nga xam ne moo di doomam Wally Ballago nekk ci yoon. kooku moom suñu doomu bopp la ndax euh, Papa Thion moo ñu ko dénk ca bu muy commencé à ses débuts ñu nekk moom la woon te incha allah ñu nag moom la ba faw du mu sa dañ ñun ay bàjjanam ñu ngi koy ñaanal di ko encercler di ko kii nag di ko taxaw ñu ngi ci gannaawam ñu ngi ci kanamam ñu ngi ci gannaawam waaw di ko jàppale na continuer ndax am na ñaanu waajur te jaaga tarfakàll macha allah am na ñaanu waajuram yal na ko yàlla lafal cat waaw merci beaucoup mën a defal ki nga xam ne daanaka moo di Thione Ballago waaw ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed ñun dañuy ñaanal suñu papa Thione fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge di wax ne man témoignage bi may def dama bëgg a wax ne mbooloo yàlla du ko jox ku soxor te yàlla du ko jox ku bon te moom ni mu mel rek moo tax yàlla jox ko mbooloo te dañ koy loolu dañ siy sant yàlla parce comme yàlla boole nañ ci famille boole nañ ci léppam rek dañ koy ñaanal fu mu toll rek di ba di ko jooy xam ne vide comme ni ko sama ñëpp waxee rek vide rek la fi bàyyi waaw ñun daal li ñuy jooy mooy teel mu teel a dem bi mu teel a dem rek loolu lañ rek la ñuy jooy mais lu yàlla la neex tamit dañ koy dañuy xam ne dogalu yàlla la ñu nangu ko rek waaw di ko ñaanal bu baax a baax bu amee looy dénk euh, ka nga xam ne daanaka moo di doomam Wally Balago euh, lu muy doon. waaw Wally nag dañ koy dañ koy dénk yàlla ak yonentam di ko ñi wax ne ñu ngi si ginnaawam comme ni ñu nekkee woon ci ginnaaw pàppam dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla taxawal dénk ko yàlla daal ba nga xamante ni lii li nga xam ne pàppam moom la daan def moom la moo moo jël bi mu téye ko ak téye bu nga xamante ne nii comme ni mu koy defee rek ni mu ko yoree rek loolu lañ koy ñaanal xam nga xol bu feesee rek doo mën a wax sax li nga bëgg a wax waale daal dañu koy ñaanal yàlla te di ñaanal nag seen mouvement bi Balago famille général bi seen troisième édition bi dañuy ñaan yàlla bu mu nekk seen mujjantalu euh, édition yàlla na ngeen koy def ay ati ati at te kenn bañ a manqué yàlla na ngeen dem ba nekk ay mag ay ay pa ay mère di ko def yàlla bàyyi leen ak waali comme yéen si génération ngeen bàyyi leen ak moom ngeen yàgg di ko fête vraiment ñu ngi ñaanal aussi suñu papa Ablaye Naar yàlla ko fi yàlla bàyyi ak suñu bàjjan Khady Seck yàlla bàyyi leen fi ñu ñuy tette ba ci kanam a kanam maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp. gaal nuyu monde entier ñëpp rek di leen nuyu di jox seen wàccuwaay bi leen yàlla jox. waa sant yàlla rek. te xam ne yàlla moom moo gën a bëgg ku baax. te yàlla moo ñu bind moo ñu sàkk. wax dëgg yàlla mu jël na koo xam ni exemple la woon ci fameem koo xam ni da daan soutenir fameem dëgg yàlla muy école bu mag kon yàlla sunu borom moom mooy sàkk mooy jël kon bu ko jëlee dañuy am xolu muñ rek mais lu mag la jël ku mënoon a soutenir fameem ku bëggoon fameem ku bëggoon ay waajuram ku daan def ci social kon dañ koy ñaane yàlla rek yàlla na xippee na fi daw si yàlla na rëcc lu noon def ci àdduna yàlla na dee di noof Euh, boo amee looy dénk ki nga xam ne moo di doomam waa di sant rek ndax dafay bàyyi nag soxna su baax muy ki ne Diouf ki ne baax wax dëgg yàlla mu jëwut pousse bi mu réer mu bàyyi fi nag njabootam bàyyi fi soxna su baax bàyyi fi doom joo xam ne exemplaire la. kon dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla nañ suuf seen bàyyi fanta de sa barke ba seen waajur jigéen bi fi des tamit yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi ñu gunge leen ba ci kanam a kanam ci barka laaj fàll san waa ji ah di ko wax nag doom joo xam ne doom ju neex a jur la doom joo xam ne ñu ñuy bàjjanam di ay baayam ñëpp ko bëgg tam matale ko nag danoo feer ci jur ko kon yàlla na sut baayam fanta da sa barke ba waa ah, waaw di leen sant nag bu baax ci initiative yi ngeen def ndax dangeen a àndoon ak coon ci bi muy dund bi mu demee tamit ngeen ànd ak moom ànd ak famiyam kon de yàlla na taxawaay bi gën yàgg yàlla na leen yàlla boole ci milliardaire Cheikhul Khadim yàlla na télé yi gën a bari xale yi xale yi fi nekk yàlla na yàlla na leen dégg fu sore ci barke Laaji Fall ci barke weeru tedd wi Ramadan Ramadan laytaka رمضان رمضان ليتك دوم الخير at jigéen bi muy laris ah ak président bu góor bi <laughs> ñun daal ñu ngi am kontaan te an mbette parce que ñun danoo sori si Faramareen bi bàkki Seydina Mouhamed amuñu si waali sago billaay wallaahi taala ñu am njiit yoo xamante ni tamit njiit yu baax njiit yu doy waar yoo xamante ne nii suñ dee wax si ñoom fii ba suba duñ jóge si ñoom parce que soutenir nañu doolee nañu xool ñu lu ñu am xool ñu lu ñu amul. bàkki Serigne Touba mun na ne ñu joxe si dugal ñu dugal seen xaalis li par benn la wala ñaar lépp président yi ñoo ko def dañ leen di sant di leen gërëm di leen delloo njukkal nag. ñu soog a ñëw si waa groupe bi vraiment groupe bi neex na am na jàmm. kontaan nan ndax ñun suñu dee def waali suñu amoon un milliard yi dañ ko si def ndax suñu yéene weesu na foofu si moom. dëgg la kooku sunu papa jo dañ koy ñaanal suuf oyof si kawam di ko ñaanal yal na yàlla leeral fu mu tëdd. kontaan nan daal man mënu wax ñun daal waali rek la topp waa Ballago famille générale moom ca kaw ca kanam. yokkute ba yëg ko bàkki sëriñ Tuubaa dañuy dem kenn duñu tey billaay wallaay góor ñi am nañ jom jigéen ñi am nañ jom te waali rek la topp topp ñu kenn ñun waali rek lañ bëgg te dëwen su naree ñaaw yàlla na mel ni ren te chaque jour nag heure bu ñuy def ndogu sant yàlla bu baax yàlla daf ñuy gën a dooleel affaire yi day gën a yokk li nu def ren balaa déwén yàlla na mën a def lu ko ëpp kontaan nan daal yëpp kenn bañ a manqué muy góor di jigéen di yaay faal di bàyyi faal waaw kay kontaan am mbette jaajëfe te kontaan ku gis lii xam ne bu ñu ne Balago famille général xam ne lii mat na ndax bu ñu wootee kenn du des am na ñuy jugee ba cees ñi jugee ba faneen ak faneen di ñëw ngir suñu jëmm ji kon suñuy def lii dafa nekk loo xam ne daal ñun daal ñaan rek lañ ci soxla di ko di ko di ko soxla ci àdduna bépp ñu ñaanal ñu nag di wax ne lu ñu def ren balaa déwén ñu def lu ko ëpp ñu loolu mooy loolu mooy suñu suñu suñu suñu mbébét quoi waaw. waaw li ñuy ñaanal Papa coon leen rek la dafa liggéey fii Sénégal liggéey wu rëy rëy rëy def fi loo xam ne si ñëw ma ne artiste def ko fi mais néew na artiste yi ko fi def mu nekkoon ci suñu biir liggéey bi mu sumboon ko yàlla dogal fekkewu ko. kon lii rek lañ mën a def quoi ñëw fii nga xam ne moom mooy suñu kër ab Abdoulaye naar ñu toog fi defal ko fi ay ñaan. ndaxte instant bii ñu soola instant bii ñu toll ñaan rek la soxla quoi ndax ñaan rek moo mën a fekk moo mën a fekk koo xam si dafa tëdd ci biir bàmmeelam kowaa loolu moo waral ñu dajee fii di ko ñaanal di ko jàngal ay kaamil di ko jàngal ay xasiida en plus di ko defal loo xam ne si comme tey lii suñ ko defee képp ko xam ne lekk nga ci baa nga naan ci di nga ko mën a ñaanal quoi loolu moo loolu moo tax ñu xalaat xalaat boobu di ko def di ñaanal di ko ñaanal nag suñu borom jéggal ko yërëm ko te xaare ko àjjana ci barkeb Seex Abdou Khadir mi nga xam ne moom la gëmoon quoi waaw da ngeen di ñaanal doom euh, bi nga xam ne daanaka ñu ko nekkee ku jug tendance to euh, daanaka moom mi ngi def la xam ne moo di ak social waaw waale moom ñun mënuñu wax ci moom sax dañuy jéem rek te li ñuy wax ci moom lenn rek la ku jéem a ku ko jéem a fakastal baa nga koy jéem a teg tànk baa nga koy diir mbag yàlla xam ne ne yàgg-yàgg da ngay daanu billaahi wallaahi tàllaahi ndax loolu moom dafa ko wax ci album bu mujj bii mbër mu yàlla samp kenn nu koo daan barke alxuraanul karim te waali maanaam nekkul ne ñun ñoo ko sampu de ñun ñii de yàlla moo ko sampu te ku nangu li yàlla dogal doo sonn soxol di jeex mais ku bañ li yàlla dogal yàlla xam ne dangay ngay sonn foo toog da jaaxle loolu moo am Wally Seck mii yàlla xam ne ne yàlla moo ko fi teg ku mu neex ak ku mu naqari waaw ñun nag li ñu koy ñaanal mooy lenn na gën a góorgóorlu gën a jàppaat bu baax a baax a baax a baax te xam ne ñun doyalaguñ ci moom waaw lépp loo xam si tey ñu ngi koy def yàlla xam ne ne ñun teg nañ ci suñu bët lépp ñu ngi de jéem a def lu mu mën ak lu mu mënul yëpp ñu ngi koy jéem yàlla xam na ko waaw ñun nag ñu ngi ci ginnaawam billaay fu mu joxoñ ñu ne ko foofu la ñun na jàpp ne bu amoon tey jii moom ay Baye Fall na jàpp ne ñun waa Balago famille ci lañ bokk ñun ay Baye Fallam lañ dañ koy guddi li ko ba bëccëgal ñun soxlawuñ ñu sax yàlla xam ne muy toog duñu remercier wala dara dañu koy defal di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ne mooy social te yàlla rekk tax yàlla xam ne ne bu ñuy def social laaju ñu ma Samba laaju ñu ma Demba ñun ñooy cotiser suñuy 1000 francs ak suñuy 100 francs ba am li ñu bëgg def lu ñuy def sargalee ko ko te yàlla tax loolu ku la bëgg rek. di sant bu baax a baax di sant euh, képp ku teew fii rek di gërëm waa Balago Family ah leen jaajëfal ah lépp rek bu mel nii rek waa Balago Family ñoo ko jàpp. membres yi nga xam ne chaque jour ñu ngi si Balago Family du kenn nit du ñaar nit quoi mbooloola la te ñu wax dëgg yàlla am dañoo bëgg groupe bi yàlla am si li ñu nekk dañ see dëgg bu baax a baax a baax caaxaan waaw di leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ah. waaw di ñaan yàlla rek li ñu def nii yàlla gën a jëm kanam si barke Seexul Xadim bi mooy suñu cinquième édition ñu koy def yàlla nañ dem ba bay nekk ay vingt vingt di ko def ndax lii lu baax dong la wax dëgg yàlla boo émancé bi ñu demee ba feeri bay joxee ndogu ay doomu aadama rek kenn xamul sa sa sa yàlla na ni maanaam wax nañ ni maanaam koor rek nit woor ba ngoor rek benn doomu mu dog ko rek loolu ay ngëneel la ngëneel la ay fay yu bëri la ñu def si loo xam ne lu bëri la ñu jox ko di ñu kontaanee ko. di jëfal ñëpp ah waaw di gërëm nag di gërëm ñoo xamante ni dañ see jàpp baax baax a baax a baax suñu suñu benn maire bu nekk euh, Canada muy awa awa mbuub madame Cissé wax dëgg yàlla am kooku dafa bëgg Papa Thione ba ca ba ñun mosuñoo gis ñun mosuñoo toog ak moom. mais wax dëgg yàlla bëgg Papa Thione ak cofeel gi mu am moo tax mu ñëw jël dooleem ak ak man-manam lépp lépp ñaqam lépp def ko si xaalis bi takk ba pare nekkoon si ay ay ay difficulté yoo xam ne mooy loolu mënoon na ko bañee def quoi ñu ngi koy sant baax a baax a baax di ko gërëm di gërëm nag bépp membre Ballago famille ñu ngi lay gërëm di la siyaare di gërëm képp faramaare yi la gërëm di gërëm yëpp ndax lépp benn la quoi wax dëgg yàlla waaw non gërëm a cant rek laay lay lay lay def ndax fi ñu toll nii ñoom euh, waa Ballago famille générale ñoom gàcc ngaalaama cant ñeel na leen ndax li ñu def rëy na trop ci xol jël sa alal di ko jël di def ci benn doomu aadama boo xam ne dundatul muy coon balaago sekk cofeel ak mbëggeel bu sincère moo waral lii ndax bu la neexoon tey ñu ne newatu fi kat pare nañ ci waaye defuñu loolu mbëggeel gi tey ji la gën a wér sax bi nga xamee ne coon newatu fi tey ji la gën a wóor tey ji lañ ko gën a dëggal ñoom ñii wax dëgg yàlla donc ñoom mention spéciale di ko gërëmee seen présidente Ramatoulaye Rama Ballago sax la ñuy wax Ranis Ballago defe naa moom la ñuy wax tellement que turam sax da koo changé ndax coon yaa may dégg di ko ñaanal farba mi nga xam ne aussi dafa empêché newu fi mais toujours est-il que moom duñ ko fàtte ndax c'est le président te tey rek euh, ren jii la ko mos a ndax dafa am empêchement loola waral ñëwul mais ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que lépp moom la neew fi waaye mu ngi fi ndax ñu ko fi représenté ñëpp a ngi fi la présidente la donc ak yeneen les membres de Balago famille général ñëpp a ngi fi donc yéen moom amuñu seen pay amuñu seen pey tey amuñu seen pay ëllëg yàlla mi am pay nag la leen di bàyyil yàlla yàlla leen yàlla fay yàlla li ngeen di daj ci Thione Seck ak famille Thione Seck te du dërëm bu ñu leen jox encore une fois ma préciser ko amul leen lu ñu leen di jox ñun lépp yéen a ko defal seen bopp lépp yéen a génne seen xaalis bopp indi ko di ko investir di ñaanal Thione Seck pour yàlla njëgal ci suñu borom ndax li ngeen di def nii wàcceel ko kaamil ba pare joxe ay ñam lépp ci barke Thione Seck kon yéen vraiment yàlla na leen yàlla suñu borom fay vraiment famille bi yëpp kontaan nañu dégg nga fële ay samay rakk yu jigéen ñi li ñu leen li ñu wax yow wax ko waa Ballago famille général yéen ñëpp wax dëgg yàlla yéen a bokk yéen a bokk même àtte bi du plus petit au plus grand yéen ñëpp gàcc ngalaam yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla defal jàmm li ngeen di def ren bu déwénee yal na ngeen mën lu kopp parce que bu njëkk ba melul ni bi passé bii passé melul ni bii it chaque jour nag day gën a yokk ci kàttanu suñu borom. yal nañ ko yàlla yal na leen yàlla yàgg may ngeen di ko mën di ko def di ko def parce que léegi ñaan gi dong la con am. leen ñu ko defal loolu lii ngeen ko defal yéen amul amul lu gën lii ngeen ko defal. nit amul lu gën loolu ñaanal ko yàlla wàcceel ko kaamil saraxel ko ay ñam wax dëgg yàlla wàcc ngeen parce que alxuraan ak waaw kontaan naa trop ci wax dëgg yàlla vraiment kontaan naa lii may wax yëpp répétition elle pédagogique nag waaye ba tey mm-hmm. naa répété rek ndax lu baax la waaw xam ne daanaka am nga ko ci euh, xale yi ba ñu organiser xam ne moom di as ndogu yëg waaw avant tout d'abord dañuy sant yàlla julli ci yonente bi sant waa Balago famille générale ndax ñoom lépp ñoom la ñun daanaka njiit lañ rek waaye xale yi ñooy def lépp ndax Balago famille générale nekk na groupe boo xam ne groupe sociale lay dox groupe boo xam ne buñ ko tijjee yàgg na depuis 2010 du benn fan yàgg na ñuy dox ci social dans l'ombre kenn xamu ko waaw xale yi di jël seen kees bu ñu dalee ñun bu ñu paree ci mag euh, ndogu bi dañuy teg kees pour ndogu déwén incha allah. chaque mois xale yi dañuy dugal 1000 francs yooyu lañuy ñuy jël jël euh, avant muy jot ñu xool euh, élément bu ne ñu ne loo am nga indi ñu boole ko balaa ko famille esprit boobu lay demee esprit social. Mm. waaw joxe te wax dëgg fa neex yàlla kuñ koy defar la ko jar. parce que borom social la moom it dañuy ñaan suñu papa Thione yal na ko yàlla yërëm saraxa yàggam ci kawam waaw doomam bii fi nekk nag dañ koy ñaanal yàlla gudd fan a wér géram muy Wally Ballago Seck nag groupe bi groupe Wally la mais papa Thione dafa ñëw bokk ci groupe bi ba bu muy dëdd mu ngi woon ci groupe bi kon kooku dañ koy delloo njukkal à chaque fois lenn la lii rek la lañ ko mën a defaral. muy mm-hmm. wàccee ko kaamil dafa ko ay berndeel. Mm-hmm. te ren mooy suñu troisième édition. Mm-hmm. mu ko muy hommage Papa Thione waaye cinquième édition doo ndogu bi. ren la tamit aussi. waaw ñu ngi jaajëfal sama prési nag euh, chaque année day ñëw mais ren dafa am empêchement. muy Farba. waaw ñu ngi koy jaajëfal. kontaan nañu wax dëgg fa neex yàlla bëggoon nañ mu teewee ko mais. l'homme propose Dieu dispose. Mm-hmm. yàlla nii la ko bëggee. mais éléments yi wax dëgg fa yàlla. def nañu euh, liggéey bu mucc ayib ñu ngi leen di remercier ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. waa groupe bi lenn la pour adhérer bi yomb na da ngay am carte membre am la kos mooy tax nga dugg ci groupe bi boo duggee ci groupe bi ñu wax la charte groupe bi lu ñuy lu ñuy tere ak lu ñuy bañ waaw groupe bi group waali la group Papa la te concept boobu rek la ñuy dox ak concept social waaw di def te yàlla tax di dimbali nit ñi waaw yor IPM e aussi balaa ko famille dafa yor IPM e IPM e boo xam ne dañuy traité suñu bopp ku nekk boo feebaree IPM bi moo lay euh, faj moo lay res et tout waaw balaa nga xam ne noonu lay doxee jërëjëf waaw te encore une fois gannaaw bu ma pare maa ngi remercier suñu papa ni papa Lamine Seck koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram nag papa Thion ba mu dëddoo suñu première édition ñu ñëw ñu ne papa ñun de dañoo bëggoon wàccee kaameel defar ay don ndogu papa mu ne amul benn problème te boobu ba léegi taxawaayam ni gis nañ ko rafet na loolu te day woo famille bi ñëpp wax leen ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaan a gudd fan a wér gi yaram mu yàgg fi loolu ñuy ànd ak moom di def chaque édition incha allah rabbi waaw di kontaan ci yéen tamit waa Feeling Dakar ñu ngi leen di remercier waaye di remercier aussi suñu maman boobu nekk États-Unis muy awam boobu madame Cissé nag yaakaar naa ne femme bu baax femme bu brave maman bu ah, ah. bëgg a waali bal euh, Mhm. femme bu bëgg Papa Thione mhm. femme bu bëgg Papa Thione mhm. nag gis nañu contribution ci ndogu bi gannaaw élément yi nag moom moo joxe contribution am te ko xeeb lool te ñun de xeebaluñu ko ko parce que lu rëy la ci ñun lu spécial la ci ñun parce que mënoon na wax ne wax dëgg faa ñuy xaw ma leen mais bu mu xamee ne concept Papa Thion la rek mu ne du ci teg benn baat waaw heure boo leen soxlawee dinaa ko def waaw te boobu ba léegi lépp rafet macha allah kontaan nañ ci moom di ko ñaanal gudd fan a wér gu yaram kontaan ci élément yëpp aussi. waaw ma yokk tuuti rek ci madame moomu. ok mooy madame Cissé moomu Awa Mboup su ma jarbaat la muy ku baax ku bëgg famille Thione Seck dëju Thione lañu xamante maak moom ba ma ko xamante ak yaa may dégg. boo boobaag léegi teraanga rek lay def ci famille bi moom dafa bëgg famille bi moom ci boppam. ba ma xamee ne dafa bëgg famille bi moo tax ma mettre ko en rapport ak Rama ne ko ñii tamit ñoo yow ñoo bokk àtte dañoo bëgg coon loolu di def ci coon sekk ak famille coon sekk. mu ne ah, moo tax ma boole leen mettre leen rapport parce que xam naa ne xam naa jikkoom xam naa xolam lu bon bon bon bon bon lu mu doon ñaar ñaar ñaar dërëm sax dina ko ci dina ko ci dugal. pour jàppale leen ko. parce que yéen li ngeen di daj il faut dafa laaj ndimbal dafa laaj ñu leen di jàppale. yaa ngi may dégg moo tax sax bi ngay woo ma ne la wool waali comme demoon nañ ca moom ba mu xam ne le neuf lañ koy def ma ne la woo ko bala bala bala le neuf ñëw far mu dem France. mais maanaam Cissé moomu. awa mbuub nit mënu ko gën ci àdduna nit mënu ko gën a bëgg Thione Seck parce que bi mu gaañoo. la wër sama numéro ba xam ma parce que gisul kenn ku mën a jaale Thione Seck te mook Thione di wax chaque dimanche te mos ñoo gisee ñoom ñaar moo tax mu may xoolee Thione Seck nee na ma man ba ma la xamee ba tey ji Thione Seck deewul yow yaa ngi fi moom Awa Cissé loolu la aw wax Awa madame Cissé Awa Mbuub kon ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla moom it lu man ren ren déwén yàlla na mën lu ko ndax chaque année moom day participer par force moom moom day participer moom. moom sax euh, daguma la. waaw euh, éléments yi waxuma ko éléments yi ñoo ko wax. Mm-hmm. dañuy def euh, dañ koy def suñu marraine. muy marraine Balago famille mm-hmm. générale. jeex na sëgam moom moo bëgg waa Papa Thion. voilà bëgg Waly Seck. bëgg bëgg Papa Lamine Nar Seck. dëgg la dëgg la ni tey mooy marraine groupe bi. te incha allah rabi dina ci jot. dinaa ko ko wax te kontaan nañ ci moom danaa ko ko wax danaa ko ko wax. danaa ko ko wax bu soobee suñu borom dina ci kontaan lool.